alaaji bu saaxoo ko ak wuutal ni mu ko diggee wuutal jullit yëpp ndax ku xëy joxe dépense sa dépense su kër sarax la sa jabar sarax la laal bi nga ko jëndal sarax la daal yi nga jëndal sa doom sarax la sa sarax la dara jullit neenu léppam tiyaaba ni nga gisee ne dara yéefar serve wër yéppam seero la المؤمن كله خير والكافر كله شر إيه وقال له سلمى تريد laajal sa borom lu la neex man maay wax amin te yàlla du delloo sama amin addis bi sax war na ne ay mbooloo du daje ñii ñaan nii ne amin te yàlla nangulu leen dinañ ci dem léegi ki doon wax na maqaama Cheikh Tidiane yi ak mayam mooy sirero attention ki ko dégg te nanguwu ko mu ne wala taxradana alayya fi mastartuhu bul ma jéem a contre maa sa xol tàng ci li ma bind bu mu am de muñal boo ci bokkulul muñal li ma lay bañal mooy li ndax soo ma contre fa tujjee bi niiraanil jahimi da lay tax a jaanama boo dingati ba bëgg soo bëgguñu ko waxtaane dara si am tijaani ci lu demee ni ñuy waxtaane rasulillahi mooy ko ko teew te bokku la ca su la yàlla dimbalul nga ñiiññi te bu sa xol saf safee loo jaamoon yàlla delloo la ko mu lakk la jaanama kon yow yaa ko lakk parce que yaa ko lu mu antunu balaa tax di ren na bul ma gaaral mukk yow laay wax xama koo doon noonu taw ci daal indi mukk mukk mukk mukk fi ma startu ko lii ma bind ñu nettali ko ne nii la seex demee bu ma la naqari de ba nga jéem a attaqué parce que dama lay bañal fa touché dañ lay fay bi niiraani jëy et eh, gars yi war nañoo sant suñu borom lu la dugal ci lislaam xam loo dugal ci taree rek xam ku la boole ci kër si dañ mali xam ci xaar wa man qaala bil jawaasi qaala bi firiyati firiyati lañ maxtaar jangeen sama gannaaw faa guñu maas ci suuf la ak raa ilimaan jaañ a ngi fii alim yaa ngi fii jàngkati naxu yaa ngi fi tuma ko sax firi mu ko bindee dafa wax ne wa minal mustaili bokk na ci li mënula am jam aha boole tariqa bi fi tariqa ak beneen tariqa ne am mukk bàyyil bële ñëw ci bii mënula ko continuer ci bële bii nag mën nga ko mën ngaa jàpp beneen bàyyi ko ñëw ci bii te du la gaañ mais bii boo ko bàyyee foo dugg jaanama nga jëm séex ba ko ko maamam joxe jox ko sarte yi daf ko ku ko jàpp bàyyi ko mu ne ko safara la jëm mu ne ah rasulillahi ku ko jàpp bàyyi ko aj màkk siyaara la mu ne ko su ma fóonee it ma rek mbir jëm su ma fóonoon benn waay bu nekkoon ci tariqa xam naa tariqa ba xam kilifa ga bàyyi ko nekk tariqa tijaan yi te dafa guddi génte gis borom tariqa bi yor xeej dàq ko ne ko lu tax ma jox la tariqa nga bàyyi ko waa ji di dox tournal fekk si jaabe bu ñu lal rasulullah toog ci diggante bi sëriñam di ko jox tariqa toog ci góos Cheikh na Tijaan toog ci am waaja làqu ci rasulullah waaja na dareet ne dama ko jox sama tariqa mu bàyyi ko parce que badalaka allahu xayran min hadi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sëriñam ba tey xeej bi seex yor ne ko man qatala muminan mutaamidan fa jasaa'uhu jahannam mu ngee layal waa ji cheikh na ko wa man yartadid minkum an diini fa yumut fa waabitat ahmaaluhum wa fil aaxirati ma xasir ne faqar ñett eh, xaaj ba ca loxo sëriñ booba naka waa ji paj dara ji tuuru na ba nga toog seen diggante arbitre wul noppi mu ci nelaw rek dem jëlaat tarixa bi sëriñ bi daf ko ne bàyyil kii jullit la ku rey jullit jaanama nga jëm seex bépp xeej ba ne ko bàyyil sama xeej ku dugg ci tariqa bi mbaa ci lislaam génn ci jaanama nga jëm ak loo mën a def te sa jëf yëpp day yàqu parce que amatoo juróomi yëpp na ngeen ko moytandiku day tax ñu annulé loo liggéeyul laay laay la laay nga saraxe nga jàng nga alxuraan dem nga màkk julli nga or nga mais juróom benn yi loo ci def yooyu dañ koy annulé nga dikk sero su la yàlla dabaatalee ba nga tuub dellu si waat itam da ngay doon ku dul àllaaji sa jabar tas na keroog dañuy yeesalaat alxayri yi yaa ngi commencé nag sero ku amagul benn yiw lu dul lëf yii rek lañu ñu xam ne ku ñu yàq sa jëf amuñu droit yàqaale ko muy tiyaaba juñ la mayoon nit di jàmbu yàlla yéene wàll la ca wala mu ñaanal la yàlla mu jàngal la kaamil tiyaaba jooju soo xamee ne murti nga mbaa nga def ci di tax ñuy yàq sa jëpp ba agsi duñ ko sañal laal parce que kuy saisir da ngay saisir ka ngay saisir lu mu moom te loolu moomu ko dañ ko liggéeyoon jox ko moo tax bari mbokk ak xarit baax di la ñaanal ci seen fàddu di la fàttaliku yooyu euh, euh, sariya maanaam euh, maanaam gouvernement l'islam amul droit tuuse ko da koy bàyyi ak hmm? mu ne ko nag ku génn ci yoonu mucc daanaka yéefar nga sa jëf yëpp yàqu na na ci tuumaal jigéen ju di jullit ci mooy te tegulu ci sa da yàq liggéey jàmm tout tout tout dara du ci def bokk na ci di tardel julli tàkkusaan cinquante taxul day yàq su tout da nga sew bokk na ci di xas nit yàlla te jotewu leen dara dañ day delloo sa ñëf bokk na ci liggéey liggéeyloo nit diggéen moom pay mu sottal nga am pay gi tardeel ko waaw yooyu yëpp tax bitul amaan day màbb gi liggéey day màbb day màbb liggéey màbb liggéey moom euh, baaxul moom jël compte sax gën jël kont mooy tooñ fële def fii lu baax <laughs> tooñ fële waaye yëf yaa ngi fi mais <laughs> ramasser tout neen baaxul ba ko seet ba waaja layee ba defe ne jànk ñet ko la te dóor ko ay alxuraan te Cheikh Tidiane moom kenn melul ci moom xam nga ni tax tarixa bi wér sëriñ dinaa la wax léegi ay melo ci nga tippoo te melul noonu rikkwaay boo demee déeyool ak moom te seeti pexe billaahi ah yow te nga bëgg a dem garage baa ngi oto yaa ngi fi taxaw xam nga it yoonu tënge lu muy fayee ku cent franc nga ñëw ne borom oto bi fa jëm mu ne refus que nga ko jëm mu ne laa jëm nga jox ko cent franc muy sarse ba gestu ne complété ne ñàkk lu muy def ne te pépp am waka aw loo am fu lay ne ko arrête koy may ko prit may ko ko waaye man kan ko arrête waxam mbiram yow mi bi nga di ko xalaat di ko peeseeg sariya su ko sariya lëngee wala sunna lëng ko mbaa mu ko yee ko ca su bañee dégg bàyyi ko ca dem wax naa leen léegi ne leen bëyin bu teer fii commandant di ko indi jàng ba génne briri yeb ba fees ñëw ci aéroport bi aérodrome bi rek ca péelu fa palto ma kippaasam dem ñu ne bëyin bi gont jot na ñu ne commandant bi ko fi gaare woon dem nañu ne nañ ooyi doomam fekk nag doom ji gisul dugg sax l'école duggul l'école siwul peloton amul benn benn na ngeen ko tuddee euh, diplôme benn te kat buy euh, avion bi dafa fees dell ak jigéeni biir ak xaleeli parental yemu ci loolu genn wàll gi yëpp gaaf la waa ji nag papa ma ko fi gaare dina entendu mais jotul nag moom duggal école ñu ne ko nag kaay comme sa papa ko fi indi allez mu ñëw nag mandi am rab yu koy daaneel bët yi naqari asamaan si galaane dama wax ne ku am fulla da ngay jël sa bagage doo doo sax doo def sax formation da ko may musiba sëriñ day mën a jàng day xam sariya day xam lu day xam aqiqa day xamee alal ak araam day xam ak mën dóob du lu ñuy doon dañ koy jàng soo amee baay bu mën a jàng jur la nga jàng su demee mën nga ko remplacer mais boo amee baay bu mën a jàng te jotu laa jàng su fi dëddee laa biireel njaboot gi laa beere sa bopp def euh, dara dégage seen kanam ñu siy wër keneen lu ko may nga teer teeraale leen fa leen neex tout suite mais ñaare muqaddami tijaan boo gis foo ko daf rek dafa fees teer naaw bu bayaat mantiq ni nga xam ne kenn du leen fekk fenn na dama bëggoon nga enul ma ndax seen melooy tax taalibi tijaan kenn du daje moom ne ko dama bëggoon ku ma enul këf kii fële de kenn kenn xanaa keneen nga koy wax mu naan xanaa da nga def nga naan ko baal ma fekk wax na ko ko ba noppi rek parce que moo mel li tax ñu nga ko kaay indul dañuy sell dañuy rafet dañuy mën a jàng e waa ji ne mu mën a jàng mi bokk na ci mënu nekk te mënula la nekk boole koog beneen mëne ne nag képp ku ne dagan na képp ku ne dagan na xaala bi firiyati firiyati nag mooy firi faaguñu kasara mooy firi sëriñ daa xam na ko oh, Maxtaar Jeng xam na ko Abbas xam na ko sëriñ xam na ko ku ne daal tariqa bi nit mën naa di ko maye te bokk ci wala nga boole koog beneen waa ji ne borom xaala bi firiyet lu ko lu ko ci ceef ak del gu tooy baax keef del gu tooy baax loolu murtadi yi nii sax nañu piréem keef del gu tooy baajoor waaw kenn luxoom la nag férié mooy luxoy kooku na ne ku wax koo mën a doon ku ne mënees naa boole tariqa beeg beneen mbaa nga ko maye te nekkul ci wax la loolu waaw kañ ku mu doon mu ne nag xat balax naa dégg nañu ca jamonoom lay wax kat abaa saa ngi mu ne xat balax naa dégg nañu ci jamono min ahlil affi ci jamono bii muy duggee man yalqanuhaa koy joxe wirdi wi te walaysa min ahlihaa te bokkul ci wirdi wi dégg naa ko ba muy bind la wax loolu xanaa kooku ci ñu oole ne mën naa am mu ne nag joxe wirdi bi te bokkul ci ñaari fànn rek la mën a doxe ima bi ismil xaas aw bi tabaruki da nga ko joxe ismul xaas ismul xaas mooy lu amul limite amul arité amul moomeel amul jàkleeg ku ne mën na caa jëfandikoo ni nga gisee sarat fàtte ku ne mën koo jëfandikoo wala nga ko jox ko bopp bi tabaru kii wala barkeelu yooyu ñaar rek kay mën a tax nekku la ci nga joxe ko bi isne la xaa xaas si nag su fekkee ci ndigal xaas la maa ngaa yëg leneen koo ko joxe ko te nekku ci ak koo ko xamu ko jox te nekku ci nañu xamal seen bopp léegi ne njaboot ak Cheikh Ahmed Tidiane bokkuñu ci ëttam taxawuñu fala budda bil izni mu ne waa ji ne benn mu am bi isnil xaafi aw di risni tabaruki ala abdi boobu nag aayul parce que mu ngi mel ni man jaa bil asanati ah falaw aslam saliha noonu rek la waaye pour joxe ko nga war a bokk ak taalibi tijaan yi nga xam ne lii alaaji Maalik bind maa ngi leen koy bëgg a nettali gàddul nañ leen ko doo ci mën bokk mën nga cee dugg nag ñu la ko ngir barkeel lu mu nekk ci eh, àtte man jaa bil asanati falahu asru amsalaha loolu rek mën a am xam nga lu xew Abbas xam nga lu mu ci teg daf na wa atu buyuta min abwaabiha xam nga lu mu ci teg ma asallahu an naqusa illa man wajadna mataahu inda allahu akbar jaar leen néeg bi ci bunt bi néeg duñ tabax ba mu mat ñu utal ko benn bunt nga ne ci cay dugg jaari ca ginnaaw miir ba alxuraan ne na wa aatul buyuuta min abwaabiha loolu ci waa teg teg na ci it ne ma dalla an naquda illa man wajadna mataana wa inda yontu yàlla yuusufa ba mu bëggee téye rakkam te rakka ja feeñu ko daf ko ne lii fi ma yoon di mayee ma téye la day danger mu ne ko lan la mu ne ko dama lay jiiñ càcc nga nangu ko te góor du nangu càcc mu ne ko lu càcc gi diis diis nangu naa mu oo surgëm si ba ñu ñëw mu ne leen kii sama rakk la sama mag yii ñëw di jigg ñoo ma sàlli woon ca dex ga ca biir teen ba defoon nañ ne deenaa ñëw na nag d'accord naa moom na ma ko retenir ba du dellu kon bu ñuy waaj fab leen sama poti bopp bii ñu may defal boisson ngeen dugal ko ci biir bakkaar ba bakaasam te du ko yëg tëj ko su ngeen génnee ba sori kilomètre dinaa ne sàcc nañ ma ñu oo leen visité leen du kuñ ko kuñ ko fekk ci yow nag dañ jaam loola loolu la moo tax waa ji ba nga xamee wala ma pasalatil ayr dam nga dëgg maa ngi bay ci jëm maa ngi sel dem ca alquran ca yonti yàlla yow sax ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wasalaam ba gars yi safee ba dox un kilomètre dugg fa azana muazinu benn kiriyee kiriyee ci biir dëkk bi ne ay waa xeew ay jëgg ay jëgg ñu ne rek taxaw ñu la faariquun sàcc alxuraan ne xaaloo wa aqbilu jëgg ja tontu nañu waaye bi ñu laata tontu dañu tourné seeni gawar jàkkaarloog ñoom xaaloo wa aqbilu gasamaag ne maa sa tafkiduuna lu ngeen nemmee ko suñu gannaaw ba di ñu ci sàcc xaalu waa gouvernement ba neen ne waxidu nemmeeku nañu shawaad maliki pot bi buur bi daan naane wali man jaa bi ibnu bair waa naa shair ku ko yor te gaaw koo génne sonnaloonu ci wisit gàddul naa ko gileem gu sëpp ba diis ak ale ñu ne teg gawar gi ne teg gouvernement bi ne teg tàndarma yi taxaw xam nga lu waa kër Yuusuf fay wax waa kër xat alim naa maa jëx naa filali nunu sule maa ko na sarfi yéen a na gor yu toll ni noonu duñu sàcc sàcc tax noo jóge suñu réew ba fii ngeen di ñu ñu ne fa maa jazaaw man wujida fi ñu ne waaw bu ngeen ko weddee ñu gis ko nag ñu ne ku ngeen ko gis jazaaw jazaaw man wujida fi ahdi ngeen ko fekk ci bagage am jàppaleen ko ñu ne bi leen suuf yëpp àgg suuf dul dul dul sandarma yi nag kaar wër leen ubbil yow fa bada bi awaitihim qabla wiaaya aqihi gisal yàlla mën a réerantal mu xiir leen ñu jëkki ci ña ko yoon parce que buñ ko jëkkee ci ki ñu yor visite bi du yàgg waaye fa bada bi awayatihim qabla wihaaya aqi ubbil xool baal nu du yow ubbil xool baal nu yow ubbil xool baal nu xale bi si gën di gune moo ci des gaa yi ne leen baal leen nu àq dañ defoon ne yéen a ko jël ñu ne non seet leen affaire yi gos bi ñu ne duñ ko seet waaye comme mag ñu jëlu ko gune jëlu ko xam nañ ne mu ngi si ah comme mag ñu jëlu ko gune jëlu ko ah foog ngeen seet ko du ngeen nu sippi ba mu des kenn te seetu leen ko et puis ñu yóbbuti seet rek gars yi ne mëntu ko waaye seet rek fastax fastaxrajaha min wilaaya ubbil ñëw bi pot bi la joxe borom tariqa bi ne na ba gaa yi jaaxle ba jaaxle ne ko foqus ahadana makaanuhu inaana rek min al muhsinin sunu pap daf doon ci bu desee àlalu nit nan dee dañ bëggoon nga jàpp kenn te bàyyi ko daf dégg nga ne alxuraan waxe waxul ne du ma jàpp lu ki ma sàcc parce que sàcc daf na du ma mën a jàpp ki ma fekk sama bagage ci biir bagage moo tax mu ne nag ku ci bëgg dugg ci tarixa bi jaaral ci muqaddam yi am ndigal lu wér parce que kenn du jël ku la kenn du jàpp ku la sàcc te it jaari leen bu néeg yi jaari néeg bi ci bunt bi loolu la borom wax mu ne nag pour ñu àggali xat balax waaw waa ji nee na kooko ak ka jox bokkul ci tariqa bi mu woy nag ni inni u'idhuha bi rabbil falaqi mi mun yudili naasa min xayri muttaqi maa ngi musli ci ki moom suba bi na ko xulontu bel falaq mooy lépp luy toj dara génn cër lay di ci suba lañ ko euh, firee ngir lëndëm gi ñu fanaani biig mu xëy na nañ maa ngi musli ci kooku ci kan maa ngi musli mi man ci sëriñ bi nga xam ne yëg yëlu day réeral naa si nit ñi min xayri muttaqin te xalaatul ragal boromam huy bi rabbi naasi min mulbasin wa min xanaasi maa ngi muslu ci sëriñ boobu le ci bind nit moom maa ngi muslu ci sëriñ boobu nga xam ne dafa làmboo mbubbam sëriñ ci waswasil xanaasi borom wooy wi nee na wa inni awhu soha bil xaaliqi min kulli maaridin wa kulli maariqi maa ngi muslu ci waa jógile sëriñ boobu leen làmboowul melow sëriñ amul garaatam te force boppam def ko sëriñ maa ngi koy muslu di musluwaale ci képp ku fit ku fital fital ku fital maridi xam nga murid bokkul ak marid murid yi ñun ñëpp moom la ñu murid wala miimee miim gi boo commencé lonk rek mooy kuy sàkku yàlla bokkul ak muraadu bokkul ak mariidu bu maasee même gi ci suuf mooy firi ku dëgër bopp ku nangulul kenn mariidu bokkul ak murid murid moo di kuy utti yàlla te jaar ca yoon wa di muy kuy fétal ne da ngay yàlla te xamul foo jëm bokkul ak nag waa kër Cheikh Ahmed Tidiane ñoom duñu murid di muraadu lañu ñoom dañ leen wuti wuti wuñu dañ leen wuti uti bokkul ak ñu ut si na uti wul sore na sore na ma dem mu ne maa ngi dolli muslu ci waa joojule tey ñaan yàlla mu xaarama ci moom wa isbi ak ku ànd ak moom bil Mustafa ci daraje yi na di al adanaani kadi rasulullahi eh, eh, eh, toronto yëpp toronto borom xam ci gën a bon sillatul alimi bi kasri lam bi sillatul bi fathi lam man ñan yaa ngi dégg de waaw ah, kay sillatal alimi laam ngi masque ci suuf sillatal alami la maasal googu ca kaw ne ne njuumteel borom xam-xam njuumteel peuple la na bee ko wax sillatul alimi sillatul alami njuumteel borom xam-xam nee na mu ngi mel ne gaal gu toj gaal gi ci boppam dana dig digale leneen lul woon gaal moo tax ñu mën a def attention borom xam-xam yi war a def attention parce que ñi lay siiwal dañu bari soo defee ñu topp ca nga def sabat ñu def sabat nga def musiba ñu def musiba dootu ñu gestu sax ba xam ne musiba nga def ñu daw musiba jéem a def yiw ñu xam ne sabab nga def duñu daw jéem a defi leneen dañ lay siiwal rek moo tax sillatul alimi zillatul xaala bi bi ko wax fakkatal bu dal borom xam-xam fakkatal la bu dal peuple ba ko topp maanaam torompeem torompe ñépp la mu ngi mel ni gaal gu toj ci géej xotti daal gi dina lap leneen lap lu dul xotti daal hmm? waa ji ne na sëriñ ñi lay mel juróom bu ci amul dëgguma mu ne isa lam yakun fi cheikh xamsa fawaid su fekkee ki nga tudde sëriñ seet nga ko juróomi yëf yi amu ci benn amu ci benn nee na maa ngi lay yëgal ne fa dajjalu musi dajjal la am musim dajjal la ngoog <laughs> mu ngi jëme nit ñëpp ci kam doo laaj juróomi yàlla nee na fokk mu nekk basirun bi ahkaami sharia allahu akbar fokk mu am xam-xam bu wér ci atte sharia aarifun bi ahkaami sharia xam nga elmu digganteem ak aarif maarifatu ak elmu xamula ko ma ma ma misaal ko ci bi ma la ko mën a misaale nga mën koo dégg elmu mooy ku mën a conduire xam première xam deuxième xam troisième xam marche xam doo daan xam euh, na mu tuddati tournal xam yooyu yëpp mokkal code de la route man waa man vitesse man boire kokoy aal waaye nag bu dawee ba ci àll bu buy paan rek lal basan yooyu nekk bi mais maa nga diggante euh, ah, tool euh, yi bu saxo campement aarif nag mooy borom complexe am bula boobu fekk ko fa gestu na kaana nga mu ne maa ngi muy ubbi kapot bi mu jonkan ca kaw ne ni picc mu takk dugg génn dugg génn dugg génn ne ko taalal mu taal mu ne jëfe ko takk ànd ak sartem dem mu dellu si Dakar toog toog ay aarif alim bu di aarif mooy chauffeur bu di mécanicien soo bëggee yóbbu nit ñi ci àll bu am gaynde soo dee bu fekkee nag jëf laa doon alif ndax apprenti nga oh, loolu foog mu nekk koo xam ne yëpp su fi ilmil aqiqa anil asli aqiqatu foog mu am ko ilmu aqiqa foog mu xam lu sëriñ bi foog mu xam lu sool ñeent yooyu su dajee ci moom mu mel nag melo mii benn bii nag moo jafeñ moo yubaadilu lil waaridi bil bishri wal xira di dogali ku ko fekk ci ku mu doon feeñal kanam bu neex ut lu mu la berndeele yemale nag borom bu mu tilim ak borom bu mu réy nga antan sa oto sa taalibe dugg ci nga antan sa nga lekk ko sa taalibe nga am suñ sis bi nga toog sa taalibe toog bu ni mel am na loolu waaye nag soo ne sama watiir tey taalibe du ci dugg fu ma toog itam si may ni mu kawee keneen warula topp kawee noonu ci suuf rek et puis sama ndën moom bi may lekk du ko xam mukk sama taalibe ko ma di ca mos kooku ku teeroo ba ci sa loxo ci moom it boo watul di nga réccu oto boo fi mu rafet ba sa naw dox nga yër ko fekk mu fees ba ñuy buuxante borom taalibe la borom nit yàlla la waaye nit ñi dul nit yàlla yëpp lu seen oto yaatu yaatu may la junnee leen gënal yóbbuwaale la dañuy bokk ca cap la rek